la dëgg nuyu naa la. waaw fay naa la jàmbar. ci loo ne. maa ngi ni xanaa nam mu leen nam supporter yeeg yëpp. ñoo la yor balaa maa ñëw xam naa sax nag Balla Gaye 2 moo la fi andi tey ndax dafa war a jàkkaarloo na ci ñi ci gën a saf fi mu toll nii. waaw pour le moment nii nii nii nii nii. waaw non bu ñu waxagum foofu. dama doom day moo aye. waaw bëgg ñu nuyoo ci rek. ñu nuyoo ci nañ ko yóbbu nañ yóbbu ko à la fin. ma yóbbu ko à la fin mais xam nii nii nii. comme bësam la bësam dafa yëg suñu nopp yi. yaa ngi dégg ñuy ñaan yàlla yàlla may ko ndam. kon pour le moment nii nii nii. naka nga gisee Balla gis tey. xam nga dama koy faral di wax. ma lenn moo may jaaxal. Balla Gaye 2 ñàkk pare. man loolu moom mën a jaaxal ci moom. bu parewul moom. sama xel du dal ci dara. mais ni ma ko gisee nii nii nii xool ko xam naa ne kii bëgg na bés bi te mu ngi place am te su leen ko waxee rek takk leen ko téere est-ce que Balla Gaye am na doole. ndax am ma ne la Balla Gaye 2 bu entraîné dëgg xoolal ca baat ba. di nuyu aussi déggoo ma de. bu baax bu dëgg da ngay xool ca loos. est xam nga ne ji revanche la. bu bu bu paree tam teg ci tam da gis ay gestes sax day bëgg ay gestes. daa pare nag macha allah yàlla bu ko ca dugg bëla bës ba. kon mu doon daal bëla bës ba. bëla bës ba. mais fi mu doon dafa mel ni ngay waxee dafa mel ni am confiance. ah mais sant yàlla sant yàlla bu baax a baax a baax xam nga boo gisee lu dal sa xel lu dal sa xel ñu ngi ñaan yàlla nag yàlla bañ tas suñu yaakaar mais boo gisee lu tas sa xel ah non suñu xel dal nag. ma gis géejawaay xale yëpp képp ku ci génn boo ñëwee da nga résultat fi toll nii ñëpp nee moom moo ci des géejawaay xale yi jot a génn ñëpp dañoo andi résultat xale yëpp nee nee nañ Balla Gaye 2 dong moo dese fi mu toll nii waaw ak guy gi sa dëgg waaw guy mais Balla Gaye dama gis mu jël si revanche contre moom Bombardier la mu yoroon Bombardier moo ko jëlee ci ay loxom la mu yoroon roi des arènes bi Bombardier yoo ko jëlee ci ay loxoom mu bëggal boole loolu lépp ak gëj bi mu gëj ci làmb ak ni ni ñu ni ñu nee làmb ponkal yëpp fi mu toll nii kenn daanagu ci ay match nii la ñuy def ak làmb dafa sooxe mu war a ñëwaat naka la Balla Gaye war a ñëwaatee dina ñëw ak doole nag ci kàttanu yàlla yal na ko yàlla may ndam yàlla bu yàlla tax sama yaakaar combat est-ce que xeex non il moom xeex moom Balla Gaye ñeme naa xeex ak Bombardier mais lu tax bu dul xeex ak moom damaa xam ne buur yàlla damaa xam ne ni Bombardier toll Balla Gaye na jàmmaarloo ak moom. jërëjëf la ma ci ne. loolu dara nekkul daa wóorul di mais bomb góor la. góor yàlla la Balla Gaye góor yàlla la. il faut ñamante am. mais ndam li moom ndam li moom. yàlla na féetee géej waay ci barke Serigne Babacar. mais fan yi damaa gis combinaison yi. ñoo ngi tas. ñëpp a ngi wax. sa digganteeg Tafatine sa digganteeg Siteu ni ñaa ngi yaa ngi dégg yooyu combinaison. waaw maa ngi koy dégg. maa ngi koy dégg. Euh, maa ngi dégg sama digganteeg euh, Tafatine maa ngi dégg sama diggante maa ngi dégg tamit Siteu tamit yaa ngi dégg mais Siteu moom suñu suñu suñu raq la xam la. na loo xamante ne il faut nit ñi di mu xaw a góor bu góorgóorloo tuuti rek yéeg tuuti ci kaw rek par nañ pour may ko chance. da ngaa bëgg da ngaa da ngaa bëgg Zoss mu bëgg Zoss nga bëgg Papa Sow mu bëgg Papa Sow. daa bëgg Papa Sow. ñëw na ba ci digg yooyu moom lañ jo moom. bëri na non bëriwuñ waaw. da ngaa xeeb si da ngaa bëgg da ngaa xeeb si. ndax dama kaa xeeb noonu mbër kenn du ko xeeb. su ma déggee nga ne noo góorgóorlu. waaw mais noonu la. mais parce que est-ce que sosul sës la bu may taxaw fi di wax vérité dara mais Siteu ndaanaan la man bañalu ma ko champion la ndaanaan la te ku ko respecté la ndax suñu rak la mu ngi ñëw yaa ngi gën a góorgóorlu boo gisee boo gisee lamb am na ñoo xamante ne ñu xam ne seen mbër. na góorgóorlu la na góorgóorlu ko yàlla jàppale yàlla dooleel ko parce que nekk na raq boo xamante ne raq boo jox cër la. non violence bi mais a góorgóorlu. ñu bañ ñu bañuy bëre ak moom. maa ngi ñaan nga a liggéeyaat fekk si mbër gis ñu may leen sens yëpp dañoo dañoo liggéey ba yegg ci kaw ñu xool la ñuy yegg si nañ ci kaw ñu yëg ñoom mais ak kan nga ma laa yar sax Tapha le géant di Baol. waaw a Tapha Tine du ma taxaw di ko maa ko daan de. yaa ko daan dama ne sa diggante moom revanche bi loo ci wax. ah revanche bu neex la. revanche bu saf xorom. pare nga bu bëgg saa saa Kande pare nga bu bëgg moom. xanaa bëriwul ñëwoon maa moom. ba xam waat ndax gis nañu fan yi fan yi keroog bi mu ñëwee stade man ngay waxal lu passé na mu ngi suñu kanam. man ak yow ñoo fi nekk ngay waxal. saa ku lekk sama wax seen di nga jóg di jóg di jóg. Lac de Guiers Tapha Tine nag lay seetaan. dama ne la mbër bu lekk sama avance say mbokk dootuñu nelaw kooku man maa ko wax moom. du ci doole. macha allah yàlla bu ma ca topp du ci entraînement du ci dàq bëre du ci dàq xeex bu ci ëppi mbokk. damaa xam ne bi nga koy daan. ak léegi Tapha Tine yokk moom laa yokk na ci lu bëree bëree bëri te boobu mën naa ne da nga koo naxoon daan ko. te bu man maa yokkuwul nag. bu baax yokk nga bu baax. waaw waaw kon bi la la léegi. wala maa taxaw ma taxawoon ba léegi. Tapha Tine day xeex. la de guerre man a yow ñooy wax. man du ma xeex man yow. xeex mais Tapha Tine xeex laa. léegi man du ma xeex man. bu fekkee du ma xeex ne ma xeexuma rek. non da xeex kon oh, wasalaam. lan ngay wax Tapha lu may wax Tapha Tine. ko félicité rek. loolu rek. kontaan naa ci yow. non bëgg naa ci yow ah. di ñaan euh, képp koo xam ne teew na fii ah ñu ngi leen di baalu wax ñëpp. supporter bala yi fi nekk ak ñëpp ñëpp mbër yi fi nekk ñëpp ñu ngi baalu wax ñëpp coono gi métti na. ah ñëpp a ngi ñaanal Balla Balla yàlla may ko ndam te yàlla na yàlla ànd ak ñun noonu di baalu àq supporter rek ñëpp ah bàyyiwuñu kenn képp ko xamante tey suñu grand suñu grand euh, Alioune Seye sama grand Alioune Seye ma bëggal ko sama bopp yal na ko yàlla defal jàmm ah. doom ndey sama xarit bu Adama Ngom moom kenn du wax ay waxam Adama Ngom kenn du wax ay waxam ndax wax ay waxam moom fii la ñuy fanaan yal na ko yàlla defal jàmm grand Adama Ngom yàlla yokk borom ndoxu or kontaan naa ci